téléphone am am ko ko woo benn oto bu ñuul kub si jamonoy couvre-feu bi la. loolu yàlla bii nii nii. Oh, mardi bii passé nii. Hmm. mardi bi. Eh, bu ko dóor. mardi bii passé la. Hmm. mardi bii jour boobu noonu buy buy dugg ci kër gi ay 22h la. Hmm. ñooñu bu ñu gaaree. kon yow sama message dañuy fanaan xanaa. waaw parce que couvre doo fanaan fan nga jëm. léegi ko defee euh, kii bi dafa am na ñu doon fanaan am ñu doon wàcc.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 léegi ma woon xam nga ne bu fi ñëw bu fi ñëw euh, nan lay ñëwee day gaar otom fu sori day dox wala. buy ñëw day gaar otom fii si boutique bi. oto bu mel nan. non man amul loolu du ma si su ma ko xamul sax du ko wax otom man otom marque otom sama yoon nekku ci. Hmm.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 mën a yegg à ce niveau là. waaw da ngeen dem fexe gis aji ngeen laaj ko loolu. aji xaw ma ko. léegi yow danga naan mës na liggéey bàyyi la moo taxoon mu bàyyi. waaw jour boobu noonu daf loon euh, comme eh eh, eh génn ko dafa am lu ñu ma waxoon ci moom ma ma njort ko. ma ma dàkk ko man a fen. tey jii yow boo toogoon ak moom sa téléphone dina fexe ba rocci téléphone bi xam na si biir portable.